mbokk alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala bokk na ci xéewalam yi ñuy dund ba léegi ñu ngi nekk ci biir chahru ramadan al mubarak suñu bisu tey bi it di bis bu ñuy fàttali lu mag lool ci suñu diine mbokk mooy li ñuy tuddee xare badr xare badr mi ngi amoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor comme bis bi ñuy dund tey mi ngi amoon it ci bisu ajjuma comme ajjuma ji mu dëppoo ak moom tey ca la ëpp ci li borom xam-xam yi wax suñ borom bi ñuy dëppale loolu yàlla nañu booleeg waa badr ci àjjana mbokk waa badr yooyu suñu diine ji bu doon ab bâtiment la ñoom ñuy fondement ya ñooy ñi jëkk a takkoo xeex jihad fi sabilillah ak armée yi féer ñañ doon xeexal ëpp leen ñetti yoon suñu yeneen it ci ñoom la waxoon ay yàlla bu la neexee day kenn dootu la jaamu ci kaw suuf cay boo seetaanee bañ faagaagal ñu ñun ñi islaam foofu la doon yem la chak bu ñu reyoon yeneen bi ki saxaabaam kon jeex na kon yàlla yàlla na nga ñu dimbali ca la yàlla subhanahu wa taala wàcce ndimbalam ca badr ndimbalam googee da ngay gis ne tudd na ko sax yowmul furqaan yowmul furqaan muy yowmu badr ba lenn ci borom xam-xam yi sax seeni takk ci laylatul qadr ñoom dañ naan suñu guddig bi gëla woon ndax li suñu borom naan in kuntum amantum billahi wa ma anzala ala abdihi yowmal furqaan yowmal taqal jamaan ala kulli xaal bis bu màgg la woon ci bisil islaam yi donte ne ni bokk na rek jullit ñi bu ñu koy fàttaliku ñu bàyyi xel mbokk jullit tey ñaati xew-xew la jullit ñi daje di ko màggal di ci yàq des centaines de millions xaw ngaa mën a wax sax léeg-léeg milliards lépp luy xew-xew yu xew ci jaami yàlla yi bisu seen juddu seen daje seen dee seen génn seen dugg lépp ñu jël ko di ko def occasion daje di ci jaamu yàlla ngir ak de màggal bis boobee bokk jàpp naa bu amoon bis bu jullit waroon a màggal mooy bisu badr keroog xare badr njàmbaarte gi yàlla jaarale ci saxaaba yi wàcce gam wàcce ay malaakaam ngañaay lam jox lislaam tudd ko ci ab téeréem yowmal furqaan jàpp naa ne bu jullit ñi doon daje di feetu di rey naga ka xelli kafe bisu badr rek la waroon a doon waaye di ngay gis rasul sallallahu alayhi wasallam musu ko def ay saxaaba mos ñu ko def ca falilahi alhamd ña nga xam ni ñoo topp seen i bànneexi seen mbiri bopp la ñuy tuddee jaamu yàlla waaye jëluñu loolu nga xam ne mooy xarbaaxi lislaam yooyee almuhim kon mbokk mi ngi noonu di ñu fàttali bis bu màgg di ghazwatu badr ah ñi ngi toll kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor yàlla fekkoon nañu ubbi téeréem bi di ko jàng ba yegsi woon ci suratul maida tey nekk ci suñu ñaareelu daje ñu war a jël la nga xam ne mooy ñetteelu aaya ba ñu ngi noonu di saar woo xam ni saar yi mujj wàcc la bokk wàcc ca madina moo tax it aaya ya day wuuteeg aaya yi makka ya boo xoolee page bi nga tiim yépp ñetti aaya dong nga ci nekk ci page bi boo xoolee page ba nga jëm ñaari aaya dong nga ci nekk te daanaka benn aaya ba jël ni genn wàllu page ba loolee bokk na luy gën a teqalee aaya yi wàcce makka ak ya wàcce madina su ko defee ñi ngi war a tàmbalee kon xurrimat aleykumul mayta su dee Cheikh Ousmane pare na insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom mu ne xurrimat alaykumul mayta araamal nañ ci yéen la medd wa damm ak bépp deret wal laxmul xinziir ak la nga xam ne mooy yàppe mbaam xoox wa ma uxilla li xayrillah mi ngi noonu ah ak lépp loo xam ne yëkkati nañ ca aw tur bañ koy rey lu bokkul ak yàlla wal munxaniqa ak lépp loo xam ne ak buumam moo ko xocc ba mu far faatu wal mawquza ak lépp loo xam ne dañ koo dóor wala ñu fël ko loolee daal di koy faat wal mutaraddiya ak lépp lu jóge ca kaw daanu ci suuf daal di faatu wan natiixa ak lépp loo xam ne dañ koo jam mi ngi noonu moom it ma faatu wa ma akala sabu ak lépp loo xam ne lekk na ko lii di njaa àll ya yay faddaate illa ma zakkaytum lu dul yoo xam ne yéena ko laabal ay yéena ko rendi avant muy faatu wa ma zubiha ala nusub ak lépp loo xam ne dañ koo rendi ca xër ca xamb ya mi ngi noonu muy xërëm ya wa an tastaqsimu bil azlam wala ngeen di séddalikoo ca bant ya ngeen di seete mu leen di xamal ndax li ngeen bëgg baax nag baaxul zalikum fisq loolu de nekk na ñeel leen di génnuk topp al yawma ya'isa alladhina kafaru min diinikum bis na ki tey day ñëkki na ay yàq ñàkk naa yaakaariti yéeféer yi ne dañ leen mën a mënal dara ba fay seen diine ji kon fala taxshawhum bu leen leen ragal wax shaw ni ragal leen ma man rek alyawma akmaltu lakum diinakum bis na ki tey day mottali naa ñeel leen seen diine wa atmamtu alaykum ni'mati matal naa ci yéen it sama xéewal wa raditu lakum alislaama diina gërëm naa islaam nekk seen diine faman turra fi maxmasatin koo xam ne dafa loru ci ab xiif gayra mutajaanifin li ismin lu bokkul ak di jeng jëm ca bakkaar fa inna allaha ghafurur rahim yàlla day ku jéggalaate la ca ku yërëmaate la mi ngi noonu mbokk suñu borom fii dañuy fi wax fukki mbir yoo xam ne da koo araamal ci ñun bim ne xurrimat araamal nañu kenn dong am droit araamal muy suñu borom jalla waala lan la araamal ci ñun mooy medd loo xam ne dafa dee ca doomu aadama reyu ko ci reyunu sharia loolu la ñuy tudde lu medd xëy nañ fekk xar mi dee mi ngi noonu xamuñu lu ko rey wala xam nañ lu ko rey dee na daal ci kenn rendiwu ko loolee dañuy gis ne dafa xaraam ci lislaam mu koy lekk allahuma bu ñu delloo ca sunna sunna moom danañu xamal liy dund géej day dee ca géej ga loolu moom taxul yàlla di wax mi ngi noonu uhillat lakum saydul bahri wa ta'amuhu yàlla mu ne daganal naa ci yéen la ngeen nappe ci géej ga ak lekku géej ga ca mooy la dee ca géej ga ca kenn napp ko lépp loo for muy dund géej mu dee am nga droit lekk ko am na it lu ci sunna génne ba tey mooy li ñuy tuddee aljarod soccet yeeg njéeréer yeeg kaza wa kaza donte ne loolu ak sénégalais jarul nga ko koy détaillé ndax sénégalais moom du lekk loolu waaye nag boo demee ci dëkk africain yi am na ñoo xam ne seen traite la ay Niger ak yooyu léeg-léeg am na fa ñoo xam ne njéeréer yi seen traite la te it jamono saxaaba it daanañ ko lekk kon mi ngi noonu njéeréer yu dee soo bëggee demal saaf lekk méddam dagan na li borom bi waxee ak dem mooy deret ja lan la yàlla jublu ci deret ja boo demee mi ngi koy wax aw damman masfuha mooy deret ji génn bu ñuy rendi la ñuy rendi loolu mooy li aram ci deret amma buñ ko rendee ba deret ja tuuru la chaque ne boo demee ci biir yàpp ba deret jaa nga fa nekk waaye deret jooju nekk ci biir yàpp bi loolu moom araamul nit ki di ko lekk muy ak damm mi ngi noonu ku ne xam ne recette di deret bi composé wu la mais loolu lépp nekkul loo xam ne ni lu xaram la wa lahmul xinziir yàpp mbaam xoox te yàpp waag graisse gaag lépp ñoo doon lu xaram te malheureusement tey internet bi mu bi mu tasaaroo nga xam ne lu ñu la ci nit ñi dugal yàlla xam bari na lu ñuy lekk mu jóge Occident mbaam xoox mi ngi ci mi ngi noonu am na kenn ci jàkk ji mu nga yónnee rek benn vidéo di wax yaawur yi ñuy lekk sax pour ñu koy condenser lu ci bëri dañ ciy def graisse mbaam xoox mi ngi noonu léeg-léeg it da ngay gis ne pour bañ nit ñi bañ koo jënd xam ngeen yàlla dafa dogal yahud yi ñun niñ bañee mbaam xoox la ko yahud yi bañee gis ngeen looloo tax yu bëri duñ ko ci def ci seen étiquette yi almuhim daal lekkook tubaab moom dee ca teey mi nga noonu mooy nit ki nag la nga xam ne yow xamuloo ko loolu nekkul di la lor waaye la chaque ne lépp loo dem ba sikk sàkkate war nga caa teey gëstu ca ba xam lan cay wax am naam amut jullit du lekk lenn lu jóge ci mbaam xoox rek jullit du ko lekk mi nga noonu wa ma uhilla li ghayrillahi bi ahalla mooy yëkkati na aw tur booy rey da nga naan bismillah am na nag koo xam ne ba muy rey mi ngi naan barke sëñ diw képp koo xam ne maa ngay rendi ne barke sëñ diw loolee da ngay gis suñu borom nee na xarak nag ak gile ma ci yam kenn waru ko lekk lépp lu ñu rey ci tudd ci tur yàlla ndax mbokk ruux yàlla rek moo ko mën a defar li ngay rey yàlla rek moo ko mën a sàkk kon boo koy rey ci tur yàlla nga ko war a rey mais turu keneen ku mu mën a doon suñu borom mu ne xaraam na li borom bi wax mun xaniqa arab yi daañu ko def yu jëfin bu ñaaw jël benn xar wala ki yooyu dañuy jël buum rek takk ci buddi ba mu ba mu dëgër këng ñu bàyyi ko dem cinq minutes bu ñëwee fekk sedd na guy loolu moom xam ne jullit du ko def waaye nag mën ngaa yeew sam xar wala yeew sa nag ngeen nit ñi bàyyi ko bàyyiwuñ ko xel mu laxasoog buum gi la ba buum gi xot ko nga xëy fekk mu dee lu mel noonu xaram na kenn du ko lekk mu bokk ci manquusa xar mi dafa nekk fii benn brique du ko ci kaw rek dal ci bat bi nga gis ne nga fekk ne dee na wala oto bi fiir ko teel mu daal di doon loo xam ne ni dee na loolu it kenn du ko lekk ñaari yëkk nag ñooy xeex benn bi roof morom bi bëjjën ba loolee daal di koy rey loolee yëpp suñu borom ne kenn du ko lekk ñu dem fekk loo xam ne nii njaal la ko fàdd gaynde la bukki la lum mën a doon moo ñëw fàdd nag bi bi mu ko fàddee lekk ca la ca des mu bàyyi ko foofee loolu it jullit du ko lekk maadaama la ko rey mooy njaal jullit du ko lekk suñu borom nag bi mu waxee yii yépp mu teg ci ne illa ma zukitum lu dul loo xam ne bi nga ñëwee fekk xar mi xoju buum gi xot na ko mi ngi tëdd sonn na lool mën na boo ko bàyyi woon mu dee waaye nag deewagul bi ko brique bi dalee sonn na mais deewagul bi mu jógee ci kaw daanu ci suuf mooy mutaraddiya li jóge ci kaw montagne wala kaw étage daanu ci suuf yooyu yépp su dee bi nga ñëwee fekk nga ci ak dund nga daal di koy rendi su boobaa dana doon lu dagan donte ne bokk na luy lay tegtal ci ne ak dund mi ngi ci bi nga ko rendee nga gis deret deret jaa ngi tuuru waaye lépp loo xam ne jël nga paaka bi rendi dagg put ba ca deret tuuruwul xam nga ne kon bala ngaa ñëw fekk dee na mu ngi noonu loolu waaw suñ caam da ngay ne am na ñu ngi nettali caamin yi jotoon seen xar xam nga fu ñu ko doon jaayee ji dem rek xar mi faatu seeni loxo dee ñu dogal ko ci biir oto bi ci ci ci maal bi bi ñuy daw oto bi naan kërën kërën ñu ne ah xar maa ngi yëngu ko dañ waa ci rendi ko waaye mbokk déedéet xar ma ma ngay rendi mu ànd ak dund boo dawalee sa pàkk rek da gis deret ji tuuru amma lépp yu demee nii nga ñëw rendi deret tuuruwul xamal ne loolu mbokk meddi la gis nga suñu borom foofu la yem mu ne lu dul li ngeen sellal indi nag leneen loo xam ne moom dara du ko sellal muy loo xam ni dañ koo rey ci xërëm yi mbokk ki ñëw ci xàmbam ci xërëmam bu mu mën a doon tëral am xaram ne bismillah rendil ko xàmb bi loolu kenn du ko lekk kenn du ko lekk maadaama jubluwaayam mooy lam koy reyal leneen la koy reyal lu dul yàlla loolu kenn du ko lekk borom boobu nag subhanahu wa taala noo nit la ci dajale ne boole ci loo xam ne arab yi dañ ko daan def mbokk arab yi dañ daan dem ci seen xërëm yi bàyyi fa benn mbuus mbuus boo xam ne nii dañ cay dugal ñaari bant bant bi mooy defal bant bi ci des mooy bul def su ma bëggee takk fat caam damay ñëw ci ci ci mbuus mi daal di yëngal bu ma génnee bant defal ma dem ne ah sëy bi dana baax su ma génnee bant mu ne ma bul def ma daal di bàyyi léeg-léeg nag su dee man fàccaam bëggal gi sori na ci man damay dem uti ak ganaar ñëw reyal yàlla xërëm ci yëngalaat bu ne ma baaxul ba tey bu wuti aw bëy reyal ko yëngalaat bu ne ma baaxul mu wuti am xam danaa neexal yàlla ji daal ba génn bant bi ne baax na ma doog a dem def ko gis ngeen mbokk loolu ku ne xam ne ak ndof la waaye ñoom ndof googu lañ tombee loon waaye ñun tamit am nañu façon ndof yu bari yu nekk ci ñun bokk na ci yooyu mbokk waa ji nga xam ne dafa am soxla dem fekk sëriñu tariyaax ba nga xam ne léeg-léeg ab pantre li fi luy ak ab saaku dem kooku war ko xamal avenir am kii nga xam ne day dem ca kay géndal kay pettaaw kay gisaani kay lum mën a doon mbokk loolee dañuy xam ne yàgg ñay doon séddale koo ci xërëm yi yéen a yem na am intellectuel bi na waa ñi ñoo daf waaye yow yaa ko gën a daf yow monsieur l'intellectuel képp koo xamee ne nii mbokk yaa ngi jënd journal ngir horoscope ndax xam ngeen luy horoscope na am horoscope nga xam ne yëmul ci journal yi sax rajo yi biir dañ koy def ñu ne bon yow day les balances masalan ñu ne ñi juddu premier janvier ba 31 mars bisub tey bii day bu leen jël benn dogal ndax dogal bu ngeen jël du baax yaa ngi dégg bisub tey bii day da ngeen am lu la bett nangam nangam waaw mbokk loolu ne xel mën na nangu loolu bu ñu paree day les béliers les capricornes les kasa ku nekk ñu wax ca doomu aadama yi mbokk ñaari cheikh ndax mën nañu bokk benn juddu seen programme jour du bokk weer du bokk seenu dund sax du bokk ci dara am déet kon boo gëmee horoscope yàkkee di dem ca xërëm yi di yëngal naan daf baax naag baaxul yéen a yem bokk jullit du gëm horoscope loolu kéefir ak tubaab la gun ñu indil léegi nag lan mooy pexe islam en général lu bëri bu la ko xaraamalee rek dana la indil loo xam ne lu dagan la loolu tax aay yi ñu jàng xorrimat loo la nga xamee ne ni moo ca topp mooy uxillat mi nga noonu yasalunaka maza uhilla lahum qul uhilla araamal nañ leen ci daganal leen ci waaw léegi jullit xaraam na muy dem ci tariyaax bi ci génnal gi ci kaza wa kaza waaye léegi bu amee pexe nu muy bu amee mbir bu muy sikk sàkk nu muy def rasul sallallahu alayhi wasallam ne jullil ñaari rakka jullil ñaari rakka nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la dogaloo ci sa kattan gi di la ñaan ci sa ngëneel yi yàlla yow yaa xam man xawma yaa man man mënuma te yow rek yaa xam kumpa fàccam mi de bëgg naa ko su dee ne su ma ko takkee dana baax ci sama àdduna ak sama alaxira yàlla yàlla nag ma ko yombalal ca barkeelal ma ko su su dee takk gi ma ko nar a takk nag du baax suma àdduna du baax suma àllaaxira yàlla nag ma ko soril ca soril ma ko ay génn ci sama xel ca utal ma loo xam ne nii mooy la nga xam ne moo gën ci man mbokk ndax lii du wékku ci yàlla ah kay lii ngay def daal di wékku ci yàlla lii nag yaa koy defal sa bopp am na ay ñu bari ci tariyaax yi da ngay ñëw ñu ne waaw après ñu li listixaaral la mbir mi istixaaral la mbir mi mooy lan bu njëkk mag ñi dañ daan laaj ay cent franc léegi nag mën nam dix mille nga koy jox mu ne la waa demal ba suba boo demee ba suba ñoo naa man day istixaar naa ko biig waaye daal li ma ci gis moom mooy nangam ak i nangam déedéet istixaara ku ne yaa koy defal sa bopp ñu répété ko yeneen sahaaba yi dañ ne yeneen bi ni mu leen doon jàngale saaro alquran noonu la leen koy doon jàngale ey yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la dogalloo ci sa kattan gi di la ñaan ci sa ngëneel yi yàlla yaa xam man xawma yaa man man mënuma yow yaay ki xam kumpa su dee ni lii tukki bii oto bi may jënd kër gi ma bëgg a toxu lii ma nangam nangam nga xool la nga xam ne bëgg nga ko def examen concours ak lu mu mën a doon su dee ne baax na sama adduna sama alaxira yombalal ma ko barkeelal ma ko baaxul soril ma ko génne ma ci ci indil ma lu ko gën lii la jullit di def ci lépp loo xam ne ni ma ngi ciy jublu kon borom bi mu ne araam na ci yéen an tastaxsimu bil azlam loolu lépp génn topp la borom bi bàyyi loolu daal di nag ne bis na ki tey day yéeféer yi xam nañ ne naagu nañu ci seen diine ji mënuñoo fexeeti ba fay lislaam ca keroog xazatu ahzab mooy ba yéeféer yi daje waa makka waa xaybar waa gatfaan seen jubluwaay mooy faagaagal lislaam mais gis nga ban demee nag ba yàlla indi contraire ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku gañe xaybar gañe na xatfaan makka mi doon capital bi mu ubbi ko gis nga ne ca la suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ca ak ga yonent bi doon tàggatoo ca la wàcce aay bii ñuy jàng ca may bokkal ca ne bis na ki tey akmaltu lakum diinakum mottali naa seen diina ji ndax diina ji da doon wàcc étape étape durant vingt trois ans la diina ji wàcc ba boobee suñu borom na léegi nag mottali naa ko mi ngi noonu am ma xiiwal yi tamit matal naa ko ci yéen donte ne ni alxuraan moo doon wàcc dog waaye xiiwul yàlla mësul dakk moo tax borom bi mu ne matal naa ko fee mu ne motti naa fi mu ne moom matal naa samay xiiwal ci yéen ca mbokkoo xam leen ne xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf wallahi jullit moo ko am jullit moo ko am mi ngi noonu képp koo xam ne nii xam ne luy kéeféera nga xam ne ñoo xam ne amuñu diine wala xattaa ñu juddoo ci biir lislaam ca amuñu diine nga xool lan la ñuy dund ci ay fitna nga xam ne mbokk diine mooy xéewal bi gën a rëy suñu borom yàlla mu ni man aarada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka koo xam ne amul diine dundam fokk mu xat te mi ngi noonu amma koo xam ne da ngay dund diine fokk yàlla dundal ko xayaatan tayiba yàlla dana ko may ay génnuwaay yàlla dana ko xettali dalal xelam lu mu am ci àdduna du ko beewloo lu mu ñàkk ci àdduna du ko saalitloo mi ngi noonu mooy xéewal gi gën a rëy xéewalu masalan yow fajar jóg julli def ay rakka xoolal ki dul julli luy programme am rawatina bu demee ba màgget mi ngi noonu xéewal gu rëy ca bala nga koo xam masalan nga tappoon ñaari nit bañu màgget wala nga xool jullit ni yàlla di meubler temps lu mu màgget màgget am na programme parce qu'il a cinq rendez-vous par jour am naa màggetum yéeféer luy programme am su xëyee suba vingt quatre heures yi mbokk lan mooy programme am almuhim nga dellu nag lan la lislaam wax diggante waajur ya doom ya njekku dëkkandoo ya njekku saafantoo yi ilaaxiri xéewalu lislaam ku ko doon lim kenn mënu koo jeexal atmamtu alaykum ni'mati borom bi mu ne nag gërëm naa lislaam nekk ci seen diine nii laa ko bëggee mi nga noonu cay yal na yàlla yërëm suñu mag ba Moussa Ba ci ña ko xam ki nekkoon amiru dawa al falah mu ne cay ma suñu borom mi bind moom diineem mu ne man mottali naa matal naa gërëm naa yow nga ne yàlla déedéet lii de son na ci yaa ngi dégg damay képp ko indi bidaa mooy da nga ne yàlla da ngaa juum yàlla mu ne mottali naa matal naa nii laa ko bëggee yow nga créé beneen mbir ne déedéet lii day moom ci lu gën a gaaw a jegal yàlla la kon yàlla da ngaa juum yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk omar ibnul xataab radiallahu anhu aaya bii de ba mu wàccee omar nekk na wane tristesse ci kanamam rasul salaa sallam ne ko waaw omar lan la léegi gis nga triste nii mu ne ko ah man de aaya bi daf ma daf ma jaaxal yow mu yàlla yónni mu ne ko lu la ci jaaxal mu ne damaa gisul lu mat lu dul ne wàññi ko moo ci des mu ne ko wax nga dëgg omar ibnul xataab wax nga dëgg amul lu mat lu dul day wàññeeku loolu tax mbokk yonente bi alayhi salatu wasalaam aaya bi bi mu wàccee juróom ñetti fukki fan ak benn la ci teg faatu même pas trois mois la faatu depuis mu faatu ba tey nit ñaa ngi commencé wàññi diina ji wàññi diina ji di yokk bidaa di wàññi diina di yokk bidaa di wàññi diina di yokk bidaa waxoon nañu ne li ñuy jëkk a bàyyi mooy attewoo téeréb yàlla bi li ñuy mujj a bàyyi mooy julli nga noonu daañu dem ba jullit ñi kenn dootu julli yàlla bu mu fi fekk ci kaw suuf waaye dina ma sa am mbokk mu ne lu loolu Omar wax donte ne Omar boobu yëpp mas na dajeeg benn yahud mu ne ko de yéen a ngi jàng benn téere ci yéen a ngi jàng aaya ci seen téere su doon ci ñun la yahut la wàcc dañ koy jàpp bi su feet omar na ko aaya ban mu ne aaya bi yàlla di wax naan matal na seen diine ji gërëm na ko nii omar na ko xam naa fan la wàcc ak kañ la wàcc mi ngi wàcc bisu arafa bu tombeeg bisu ajjuma ca la nga xamee ni ni mooy arafa loolu ñun yàlla defal nañu ko ñaari feet bisu ajjuma mooy feetu jullit ñi bisu arafa feetu jullit ñi la kon loolu yahud ba doon mébét ñun yàlla far nañ ko defal ndax ñun dañuy màggal ajjuma te dañuy màggal arafa ca muy loolu lu jóge ci yàlla subhanahu wa taala kon nga la waay mbokk jullit xamal ne diine yàlla ji daal mat na mooy lu dul woon diine keroog bay aay yi di wàcc dootul nekk diine ba ilaa yawmi diin borom boobu nag subhanahu wa taala delluwaat ca bopp aaya ba araamal naa leen liig liig liig lii waaye képp koo xam ne day dafa loru ci xiif xiif boo xam ne wóor na la yow mënatoo dem lu dul nga lekk lii yàlla araamal ba nga cay dem jengoo ngir jëm ci bàkkaar sunu borom mu ne su boobaa bal naa la su boobaa bal naa la ca mbokk waa ji nga xam ne dañ koo tëjoon kaso duñ ko jox mu lekk lu dul yàpp mbaam xuux kese lañ koy servir ku mel noonu fu mu demee ba yëg ne xiif sonal na ko am na droit lekk ci yàpp mbaam xuux bi ñii doon tukki ci àll dem nañu xiif nañu amuñu luñ lekk dajeeg benn kéwél gu dee am nañ droit jël ko lekk ko ay lépp loo xam ne daal lor moo la ci yóbbu su boobaa da ngay gis ne suñu borom mu ne baal naa la loolee doonte ne ni mu am mbir bu boo xam ne it kenn ci ndaw ñi wax na ma ko ca wallaay bokku ca benn waaye nee na dafa dajeeg ñoom ca Italie gëj nekk kuy wootoo borom xam-xam mu ne waaw yàlla li muy bañ rek ku bew wala kuy bàkkaar waaye képp ko loru yàlla baal na la yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk fii bàyyi seeni soxna ca àll ba nekk fii at ñaari at su ngeen loroo man ngeen dugg ci ruq am lu ngeen fa def su ngeen génnee it loolu yàlla baal na ndax loro tax waaye ndax kenn ci ñoom nangu na sa soxla wala ne la bii kat loru naa dem naa ci dem naa ci diw fañ na fajal na ma sama soxla ala kulli xaal bokk loolu bokku ci suñu borom mi ngi wax lor goo xam ne suñu borom ni mu bind doomu aadama su toogee diir bu yàgg lekkul day dee lépp lu la nar a yóbbu ci dee yaa ngi koy lekk ngir sauver sa bopp ci dee mais ndax mën nañu wax ne waa ji dafa toog ak àndul ak soxna moo tax mu dee toog na fukki at àndul ak soxna moo tax mu dee déedéet nit dana dund ba xëy am 70 ans musul ànd ak soxna buy góor wala jigéen kon loolu kenn du ko ca boole mi ngi noonu Cheikh Ousmane incha allah.
اليوم أحل لكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بارك الله فيك suñu borom mu ne al yawma uhilla lakum at-tayyibat non suba ah kon chef mu la beral chef mu subhanallah yasalunaka maza uhilla lahum ñi ngi lay laaj ma ñoom lu ñu daganal ñeel leen qul uhilla lakum at-tayyibat neel daganal nañ ñeel leen lépp lu teey wa ma allamtum min al-jawarih ak la nga xam ne yéen a koy jàngal ca ña nga xam ne dañuy faggu ma jaraxtum bi nahar mooy la ngeen di faggu mukallibiina ña nga xam ne nii ñooy fadd comme na xajjey fajje doonte nam ñu ne mukallibiin ay muallimul kilab ña nga xam ne ñooy jàngal xajje nu ñuy fadde ay kon loolee nga xam ne tàggat na ko ñooy tàggat xaj ya la ñu fadd dagal na ngeen lekk ko tuallimunahunna mimma allamakum allah yéen a ngi leen di jàngal ca la leen yàlla jàngal fakulu mimma amsakna alaykum lekk leen ca la ñu jàpp ci yéen jàpp ay ñeel leen ma amsakna lakum wazkuru isma allahi alayhi tudd leen turu yàlla nag ca loolee wattaqu llaha inna allaha sari'ul xisaab na ngeen ragal yàlla yàlla ko gaaw la ci ni muy xisaabe ay jaamam al yawma uxilla lakum atayibaat bis na ki tey day daganal nañ ñi leen yu tey yi wa taamu allazina utul kitaaba xillun lakum ñamu ña nga xam ne dañoo jotoon téere ba dagan na ñeel leen wa taamukum xillun lahum yéen it seen ñam dagan na ñeel leen ngeen may leen ca wal muxsanaatu min al muminaat dagan na ngeen takkit jigéen ña fegu ca ña gëm yàlla wal muhsanaatu min allazina utul kitaab dagan na it ngeen takk jigéen ña fegu ca ña jotoon téere ba min qablikum jiitu leen ida aataytumuhunna ujurahunna su dee da ngeen leen a jox seen can ya muhsiniin ngeen doon ñoo xam ne aji fegu ngeen di doon gayra musaafixiin bañ a doon ñoo xam ne ay njaalookat ngeen di doon wala muttaxisi axdaan bañ a doon ñoo xam ne dañuy jàpp la nga xam ne mooy ay core coro muy koppe ak i copine comme ni ko xale yi tey di waxe wa man yakfur bil iman koo xam ne dafa weddi ak ngëm faqad xabita amalu ko mel noonu day màbb na jëfam wa huwa fi l axirati min al xaasirin ca àllaaxira dana bokk ca ña nga xam ne daña perte mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee na saxaaba yi day ñi ngi ñëw ci yonent yàlla bi di ko laaj waaw léegi nag lan moo dagan ñeel ñu suñu borom na yonentam xul waxal loolu muy wan ne kon yonent yàlla bi day jottali waaye kiy tontu muy yàlla suñu borom xul waxal ne kat uxilla lakum at-tayyibaat daganal nañ ci yéen lépp loo xam ne dafa teey lépp lu teey mbokk mooy loo xam ne nii dalil ñëwul ci ne dafa xaraam te it tekkal ñëwul ci ne day lor doomu aadama bu ko lekkee lépp loo xam ne texte ñëwul araamal ko ca boo ko lekkee dana la jëriñ du la lor loolee ca yu tey yàlla bokk muy wane ne kon lépp loo xam ne nii texte da caa ñëw araamal ko julit amatul droit lekk ko xar mi mi ngi nii ñun ñëpp xam nañu lekk xar dagan na mais bi ñu xëyee ñëw fekk xar mi dee léegi luy pexe sànni wala leneen mais kenn dootu ko lekk lépp loo xam ni it masalan aw ñam sax bu doon dañoo dem ba ñam bi yàqu yàqu goo xamee ne nii expérience lay wane ne ku ko lekkati lii mën na la lor su boobaa du dagan jurit muy lekk loolu looloo tax ba mbokku cigarette su bon si borom xam-xam yi mujj ñépp sikk sàkk wuñu ci ni dafa xaram ndax lor ga muy def doomu aadama ca moo dina ne amul benn organe bu yàlla def ci doomu aadama lu dul tuxkat bi mi ngi koy détruire mi ngi koy yàq heure buy tux bal yenn ci médecins yi seen takk sax dañ naan cigarette boo tux wàññi na sa dund quinze minutes yaa ngi dégg ndax na mu mën a jeexital looli maa ngi leen di nettali suñu génn góor yal na yàlla subhanahu wa taala dolli ko njëggal yërmaande muy góor gi Dramane Diallo mi nga noonu naa leen fàttali it suñ jàkka ji ba mu njëkkee pare moo ko jëkk peinture ci xaalisu boppam nee na nekkoon na ndaw ca France yàlla na too ko muy tux muy tux waaye ñenn bis la dem feebar dem hôpital ah médecin bi def prélèvement ci karawam def prélèvement ci deretam bi mu ñëwee da ko toog da ko voilà léegi monsieur Diallo léegi c'est à toi de choisir entre le tabac et la mort yaa ngi def maam imma bàyyi taba wala nga dem deeyi rek loolu lan moo la ci gënal mu ne ko xanaa bàyyi taba yaa ngi dégg mi ngi noonu ala kulli xaal moo ko jurit loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dafa xaram yow commerçant bi koy tux lu am bénéfice la na am waaye maa ngi lay seedal boo ko bàyyi ci yàlla tax yàlla wutal la lu gën loolu mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne li tey mooy li dagan bokk na li dagan it la nga xam ne yéen a ko tàggat ñu leen di faggul ci mukallibiin ca mooy ña ñi tàggat ñuy def li xaj di def loolu mën na nekk segg loolu mën na nekk ay aigle loolu mën na nekk yépp boo demoon ci arab yi la nga xam ne mooy faucon yi ak yooyu dañ leen di miinal seen bopp tàggat leen ba ñu leen di rëbbal njombar yeeg yu nekk am na ñoo xam ne nii dañ tàggat ay segg ba mën leen di rëbbal yooyu yépp kon lépp loo xam ne mën na dem di jàpp di fàdd rek dañ naan jawaarix la mooy day faggu su boobaa bu dee dañ koo tàggat xamal ko te mooy ba la ko demal mu dem ba la ko taxawal mu taxaw loolee dañuy gis lépp lu mu jàpp dagan na doomu aadama bi lekk ko suñu borom mu ne li ngeen leen di jàngal mooy rek la nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen ko jàngal te it mbokk lu waay xam yàlla ko ko jàngal malaaka yi lañu waxoon laa ilma lana illa ma allamtana na ko noonu nit mbokk yàlla mooy jàngal doomu aadama yi nu ñuy def ba nekk ci kaw suuf suñu borom tasaari nit ñi ñu nekk des milliards déplacement yi bëri ca la yàlla jàngal doomu aadama nu muy def ba créer loo xam ne jokkoo dana yomb yàlla jàngal doomu aadama mu defar oto avion téléphone ordinateur lu mu mën a doon yàlla mooy kiy jàngale mi ngi noonu bi ngay judd xamoo dara suñu borom heure bu ko neexee nangu xam-xam bi yéen a ngi leen a jàngal ci li leen yàlla jàngal suñu borom mu ne liñ leen jàppal lekk leen ko lool it moo di ne bu doon te da nga am ab xaj boo tàggat ci loolu boo ko yónnee mu jàpp loole même boo ñëwee fekk mu rey ko dagan na nga lekk ko am maa nag bu doon moom daa demal boppam yónni woo ko mu jàppal boppam loole yow doo ko jël moo tax suñu borom ni amsakna alaykum ay amsakna lakum li ñu leen jàppal charte ba it mooy boo koy yónni da ngay wax bismillah xaj bi la lu mu mën a doon ci la nga tàggat aigle bi léeg fukkoo mbaag lu mu mën a doon boole ko bismillah rek mu dem la muy jàpp même bu ko reyee dagan na nga lekk ko mi ngi noonu fazkuru ismallahi alayhi tudd leen turu yàlla ci loolu doonte ne ni bokk na lu ci borom xam-xam yu mujj di boole mbokk mooy li ñuy tuddee fetal fetal waa ji nga xam ne dafa yor fetalam seen benn kéwél mu ne bismillah tiire ko kéwél bi daanu avant muy ñëw fekk dee na dagan na mu lekk ko loolee la nga xam ni loolu lañ ko doon layele mooy bu jëkk ay xeej moo amoon rasulullah sallam benn waay ñëw na laaj ko su dee dama sànni sama xeej benn cible mooy li ñuy rëbb mu am mu rey ko nag léegi ah loolu ndax dagan naa lekk rasul sallallahu alayhi wasallam na ko bu dee ci ñaw ñaw bi de moo ko jam ba loolee ko rey dagan naa lekk mais bu dee ni guddaay bi moo ko jam nga xam ne fi yat bi nekk rek weñ gi kese moo ko dóor loolu day nekk lu ñu assommé loolu it la ci borom xam-xam yi gisee ni ñawaayu xeej boobi bal moo ko gën a ñaw fuuf kon bu dee ni yow da ngaa yor sa pistolet sa fusil sa lu mu mën a doon gis benn bàyyi ma nga ne bismillah dóor ko même bu dee ci loolu dagan na nga lekk ko donte ni am na yeneen détails yoo xam ni ci dar su fiq yi lay gën a leere suñu borom yàlla nag mu ne ragal leen yàlla ca xam ne yàlla ko gaaw nu muy nu muy xisaabi ay jaamam la ca mbokk wàllu lekk yi dafa jege bakkanu doomu aadama lool su ko defee nit ki mën na ci gaaw a déraper ba dugg ci loo xamee ni nii nekkul lu dagan mi ngi noonu loo xam ne nekk nekkul lu dagan di gaa yi nett bi rek gaa yi maykat yi ñu ne law bi ba daa am am kuyam kuy bi mu xëy dee mu ñëw ci sëñ bi da ko sëñ bi man de sama kuy mi ma yoroon lu ma mas a am moom laa ko jox ma yaakaar sama njaboot yaakaar ko ma xëy suba rek fekk mu dee waa léegi léegi lu ci fexe sëriñ bi na ah bu la andee na dagan na yaa ngi de waaye ala kulli xaal loolu ñuy lépp day wone rek ne nit ki alalam daf ko jege rawatina wàllu lekk rawatina loo yaakaar loolee da ngay gis ne dafa jege doomu aadama foog naa ni maa ngi leen di nettali koo xam ne moom du ay léeb benn suñ mbeng fii la daan ñëw ak man ci tafsir bi dañoo ànd nee na moom benn xaritam ñu romb benn réception nee na ñëw rek fekk gaa yi teg boolu yàpp yi ñu naa li di xéewal la commencé lekk bi ñuy lekk bu mujj waa ji ma àndaloon ne ki mu toogal waaye yéen seen yàpp bu duuf na de mu ne ko yàpp mbaam ko xamel noonu nee na man ma yëkkati sama loxo jóg waa ji dafa ah comme man commencé naa moom damay yeggale yaa ngi dégg waaye ala kulli xaal moo tax suñu borom bi mu waxee lekk yi ba pare mu ne nag ah attention na ngeen ragal yàlla nag te xam ne yàlla ko gaaw la ci ni muy xisaabe ay jaamam borom bi wëlbati ko waat daa ji ne bis nekk tey day daganal naa ñeel leen lépp loo xam ne nii du tey la ay mooy lu leen du lor te texte ñëwul araamal ko waaye daganal naa leen it ñamu ahlul kitaab juif yi ak chrétien seen ñam dagan na ñam bi lu ci yàlla jëblu mooy la ñu rendi lépp lu chrétien rendi lu juif rendi dagan na yow julli nga lekk ko amma bu dee luñ dul rendi gato yaag ceeb yaag yeneen kooku moom même yéeféer bu gëmul yàlla gëmul dara sax dagan na nga lekk ko da nga loolu waaye fii mooy lu ñu rendi su chrétien rendee wala juif dagal na nga lekk ko malheureusement boo demoon occident tey ñoo fa ëpp ay chrétien ki juif mais ndax seen yàpp dagal nañu lekk ko quatre-vingt-dix pour cent yàpp yee daganul ñu lekk ko parce que ñu néew ci ñoom ñooy tiim di rendi léegi ay machine la ñuy rey ak ay yu kenn xamul loolu tax boo demoon seen marché yi da ngay gis dañ ci bind xalaal mi nga noonu pour bu ñuy jaay jullit ñi dañ naan lii moom xalaal la muy wone ne dañ koo rendi rendi sharia naam léegi nag am ci yenn borom xam-xam yu naan maadaama ñamu ahlul kitaab la rek ñoom bu daganee ci ñoom dagan na waaye déedéet mbokk jullit loo xam ne bu ko jullit defoon du dagan nan la ko chrétien defa muy dagan jullit bu ñëwoon jël martum dóor tey jii am xar mu dee du dagan tey jii ni ñu mën a gisee ñoom seen boo demoon seen fi ñuy rey seen serration xam nañu ko tuddee abattoir yi non da ngay gis yu bari nag bi day jaar rek ñu assommé ko même pas quelques minutes tasaaroo nañ lépp bokk loolu jullit bu ko defoon du dagan kon bu dee chrétien da la leer na moo rendi ganaar gi xar mi nag bi lu mu mën a doon da ko rendi su boobaa dagan na nga lekk ko façon reyin buñ ko mën a rey ci rendi wuñu ko su boobaa du dagan ñu lekk ko fetal googu ma leen doon wax ci rëbb lay dagan mais du dagan nga tiim xar di ko fetal wala tiim nag di ko fetal am maa nag bu dee ci rëbb dana dagan te am bu doon tane yi dafa rëccoon nag bi mu rëccoon kenn mënu koo jàpp lu dul ci sànni xeej wala ci fetal dana dagan waaye kenn du ko tiim di ko def almuhim mi ngi noonu seen ñam dagan na ngeen lekk ko yéen it dagan na ngeen jox leen seen ñam ca loolu it mbokk mi ngi noonu lépp lu ñu lekk dagan nañu may ko chrétien wala juif loolu muy wane ne mbokk teg la nga dëkku naan yàpp tabaski kenn du ko may ab chrétien déedéet mbokk jullit lépp lu ñuy lekk dagan na ñu may ko chrétien ñu ngi noonu seen ñam dagan na ngeen jox leen ko borom bi it daa di ne daganal naa leen jigéen ñi fegu ci jullit ñi mbokk jullit du takk jigéen boo xam ne njaaloom dafa siiw ab njaalookat kenn du ko takk lu dul ñu yëg ne tuub na contraire bi it góor goo xamee ne nii mi ngi gàddu ay moyem rek njaaloo mooy liggéeyam ku mel noonu amoo droit di ko may sa doom bu jigéen mi ngi noonu naka noonu suñu borom mu ne dagan na ngeen takk ña nga xam ne dañoo fegu ci ahlul kitaab juif la chrétien la gëm na ne ne njaaloo xaram na su boobaa dagan na nga takk ko mais malheureusement mbokk jullit tey li ëpp ci jigéen ñi dund Occident xamatuñ ne njaaloo arab la dañuy changer partenaire ni ñuy changer ay yére mi ngi noonu nekk sa jëkkër gannaaw ba ku la neex ngay àndal heure bu la neexee nga football ko da ko bëggatuma la kii laa bëgg loolee nag mbokk bépp jigéen boo yëg ne araamalul ak njaaloo jullite chrétien ak juif ci yem ku mel noonu amoo droit di ko takk am naa su dee ne day woote ne man juif la chrétien la gëm naa yàlla gëm naa isa même buy wax isa doomu yàlla la daggan nañu lekk seen ñam daggan nañu takk seen doom bi charte mooy ñu mu bañ a doon koo xam ne am njaalookat la loolee mi ngi noonu su ko defee islam dana saxal ànd ci ak kéeféer mais du saxal ànd akuk njaaloo naam ndax xam nga ne jigéen biy njaaloo mën na la indil doom nga fokk yaa ko jur fekk juróo mën naa indi ay feebar jox la ko nga far ci faatu mi ngi noonu am na ak chrétien moom ak chrétien nag moom ci moom la yem bu ngeen amoon ay doom yi da nga xam ne ñii sumay doom lañ mën nga leen jël ñu nekk ay julit bu ko defee moom mu sax ci chrétien am loolu nag buñ koy wax ndawi julit yi dañ naan dagan na waaye encouragé wu ñu benn ndaw mu koy def lu dul koo xam ne lor tar na ci moom lool soo demee ba yëg na loru nga lool su boobaa de mën nga koo def ngir lor am maa rek ngir bànneexu bakkan ngalla waaye yow ndawal jullit dem takk chrétien la ci nekk ci danger moo ëpp fuuf bànneex ba nga cay dabu mi ngi noonu dana jafe lool njaboot ga ngeen ciy am nga mën koo contrôler takk ko ci amoo ci njaboot it daf lay tardeel su ko defee daal ba lor amee dagan na bu lor amul dañ naan la bu ko def mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne ñooñu day nañ leen jox seen can ñu jàpp ne ay soxna lañu mu nekk soxna chrétien moo xam ne soxna la mu bañ a doon ñoo xam ne ay jigéeni njaalookat rek lañu nga xam ne kii moom njaaloo rek ay métier am na ay boitam yu muy daje di recevoir góor ñi nga ñëw fay ko pour njaalook moom loolu dafa xaraam waaye naka noonu it mutaxise axdaan ña nga xam ne ay concubine la ñuy doon ay moom kat du njaaloo keneen ci yow rek la yem yaay copain mooy su copine loolee ñu bari ci nit ñi araamu lañ ko dañ koy def xattaa ci jullit ñi waaye soxna see gàddub sëram góor gum dajeel ay ca la muy def nu mu xaraame kii yem ci benn góor it la muy def noonu la xaraame bokk njaaloo bu ñuy duma nit ki du ñu wax njaaloo na fukki yoon wala njaaloo na benn yoon ndax njaaloo am na wala amul buñ koy rey ndax njaaloo am na wala amul loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax wala muttaxide axdaan borom boobu nag ne ki weddi ngëm yàlla ku mel noonu day jëfam màbb na te ñu xam ne itamit mbokku diine ngi noonu heure boo defee lu la génn ci diine la nga jot a def yépp yàlla màbb na ko mu des nag waa jooju nga xam ne duggoon na ñu tudde ko Muhammad wala Ibrahim mu judd ci lislaam yoroo ci lislaam dem ba yàgg franc-maçon yi nax ko génne ko ci diine mu deme dem ba mujj yàlla wëlbatiwaat xolam mu dellu siwaat ci diine lam jote def ci diine ndax dana valable masalan ajoon na Makka tey ndax dañu naan lim jotoon def valable na am lenn ni ci borom xam-xam yi ne lam jotoon def yépp màbb na ndax yàlla nee na habita amalu kon léppam màbb na amatul benn tuyaaba bu aji woon Makka fukki yu nit il faut mu aji woon Makka am ñu ne su tuub ga sellee kay yàlla dina récupérer lam jotoon a def ci lu baax dollil ko ci li mu nar a def ci desutu dundam almuhim nañ xam ne dara gënta màgg musiba ci kaw suuf mooy génn ci diine yéeféer yaa ngi nii islam bu fi nekkoon it dañ di seetaan seenu kéeféer mi ngi noonu lu dul ci ay surutu jihaad waaye képp koo xam ne moom jullit la ba pare génn ci diine su boobaa ñaar dong la ñuy tànnaloo kaay dellu ci diine wala ñu daal di lay rey mi ngi noonu borom boobu nag ne képp koo xam ne fexe na ba génn ci diine lam jëfoon màbb na ca àllaaxira day bokk ca ña perte yàlla na yàlla musal ñu ci loolu waaw
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون barakallahu fiik suñu borom mu ni yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida qumtum ila salaa su ngeen jógee jëm ci julli faxsilu wujuhakum na ngeen raxas seen kanam yi wa aydiyakum ila almarafiqi raxas leen seeni loxo ba ca conca ya ay ma al marafiqi raxas leen seeni loxo raxasaale conca ya wamsaxu bi ru'usikum masaa leen ci seen bopp wa arjulakum ca ngeen raxas seen tànk ya ilal ka'bayni ba ca dojor ya ay ma al ka'bayni ngeen dugalaale ca dojor ya mi cheville ya wa in kuntum junuba su dee da ngeen a ànd ak janaba fattaharu su boobaa laabal leen yaram wa lépp wa in kuntum marda su dee nekk ngeen aji feebar aw ala safar wala ngeen nekk ci tukki aw jaa ahadu minkum min alghaa'it wala kenn ci yéen jóge ca wanag wa alghaa'it mooy xur wa arab yi dañ daan amuñu woon ay douche comme sunu maam yi Sénégal yi fi yëpp amuñu woon ay douche dañu daan dem benn place bu suufee fa la ñu daan demee wanag bu ngeen fa jógee ay ça veut dire que bu dara génnee ci yéen ca la ñuy def ca wanag wa aw lamastum nisa wala ngeen laalante ak soxna muy jigéen falam tajidu ma an ca amuleen ndox fa tayammamu na ngeen doon ñuy jublu saidan tayiba suuf boo xam ne nii suuf bu tey la ay suuf bu laab la ay kon na ngeen tiim famsaxu bi wujuhikum na ngeen masa ca seen kanam ya wa aydikum minhu ak seen loxo ya ca loole maa yuridu llahu li yajala alaykum min xaraj yàlla nag bëggul defal leen ci yéen benn xat-xat walakin yuridu li yutahirakum yàlla daa bëgg ci laabal leen rek wala yutimma ni'matahu alaykum motti li xéewalam ci yéen laallakum tashkurun ngir ngeen doon ñoo xam ne ñuy sant lañu mi ngi noonu mbokk waxoon nañu leen ay saar bi moo ëpp wooteeb yaa ayuha allazina amanu ci téere bi yàlla bi ñetteelu woote bi ci yàlla di woote mooy ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm su ngeen jógee jëm ci julli na ngeen jàpp su ngeen jógee jëm ci julli ay mooy su ngeen jubloo ci julli rek na doon da ngeen a taxaw wala da ngeen a toog da xam ngeen ne ki jóg di julli islaam danaan ko taxawal su dee mënoo taxaw nag toogal soo mënul toog tëddal waaye ak lu ci mën a am soo mënee jàpp moom jàppal su ngeen jógee jëm ci julli loole da ngay gis ne lenn ci borom xam-xam yi dañoo tënk ni njàpp daal ñi ngi ko farataal ci julli leneen lu dul julli da ngay gis ne tegtal bu sax bu leer amu ci am na ñoo xam ne nii moo tax dañ naan jàng alxuraan tegtal bu leer buy wane ne da nga war a jàpp amu ca tawaaf amu ca ila axiri ala kulli xaal yooyu yeneen yeneen mbir la waaye li wóor daal mooy julli moom farata la ak naafila ci bokk yem su ngeen jógee jëm ci julli na ngeen jàpp bu doon te ne ni texte bi fuy la yem dañuy dëppoo lenn ci borom xam-xam yi gis ne julli gu ne dañ koo war a jàppal waaye mbokk loolu lu tumuranke la ca ñoom waaye la ëpp ca ñoom lañu wax mooy fekk yoru leen njàpp ida qumtum ila salaa yéen a ngi jóg di jàpp fekk yoru leen njàpp seen njàpp toj na mais bu fekkul sa njàpp toj njàpp bi nga ju jàpp tisbaar mën nga ci julli tàkkusaan timis gee bu la neexee mu ngi noonu kon bu dee yuru leen jàpp doonte ne xam leen it ne bokk na ay ngëneel yu rëy mooy njàpp moomu même boo yoree njàpp julli jot nga jàpp jàpp bu yees rasul sallallahu alayhi wasallam li ëppoon ci julleem julli gën a da ko doon jàppal ndax jàpp ci boppam daa nekk jaamu yàlla spécial comme ni julli nekkee jaamu yàlla rasul sallallahu alayhi wasallam nee ne ki jàpp ba pare daa di ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nee na ko mel nii mboolem juróom-ñetti buntu àjjana yi daañ ko ko ubbil yowmal qiyaama fu ko neex duggee fa yàlla na yàlla boole ñu ca looloo tax mu nekk jaamu yàlla spécial ca la ca nekk ci ay ngëneel bokk na ci lu bare bari loo xam ne yeneen waxtaan moo ko mën a leeral borom bi subhanahu wa taala ni kon jóg ngeen bëgg a jàppi naam suñu borom ni na ngeen raxas seen kanam raxas kanam mooy fi nopp saxee ba beneen nopp ba muy largeur bi longueur ba it mooy fi karaw di saxe ci aada sa jë fa muy saxe ci aada bu dee ñel leel taxul ñuy wax ba baa suufu sikkim bi loolu la ñuy tuddee kanam bu ko defee loolu dañ koy raxas gannaaw ba ñu raxas loxo bi ca mooy ñaari loxo yépp ba romb la nga xam ne mooy suñu conco raxasaale conco ya suñu paree ñu massa suñu bopp bopp bi firiwul ne léppam la ñuy massa waaye mooy fa karaw gay karaw bopp di sax ci normal loole la ñuy massa borom bi subhanahu wa taala it ne wa arjulakum loole ñu jàng tuuti grammaire ñooy xam ne suñu borom bi ne wamsahu bi ruusikum mooy kon bopp dañ koy massa amma arjulakum kon day fekki faghsilu wujuhakum looloo tax tànk dañ koy raxas ca loolu mooy la sunna saxal na am doonte ni qiraa am na ci yoo xam ne day wax arjulikum waaye lu bari ñoom lañ koy firee mooy mujaawara bi nekk sosoo diggante ruusikum moo tax ñuy jàng arjulikum waaye tànk moom mboolem ñi jàngale njàppum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon raxas ay tànkam mbokk alquran li la wax raxas leen seen kanam raxas leen seen loxo masaa leen seen bopp raxas leen seen tànk amma boo delloo ci sunna moo lay wax ne da ngay gàllax ndiku da ngay sarax ndiku soo delloo ci sunna moo lay wax ne da nga bu la neexee raxas yépp benn yoon bu la neexee ñaar bu la neexee ñetti yoon soo demee ci sunna moo lay wax da nga war a jonj da nga ko war a tegale ila axiri loolu kon ci tënk mooy njàpp mooy kii mooy ki nga xam ni la nga xam ne moo ko gaar bokkul ak janaba léegi nag ki nga xam ne moom daa ànd ak janaba lan mooy janaba ki nga xam ne mënu yi daa génn ci moom imma ci ay nelaw la wala ci imma àndugu mu ànd ak moroomam wala imma ay pexele def ba génne ko ku mel noonu dañuy gis ni mi ngi ànd ak janaba ki nga xam ne yi dafa ànd ak moroomam ci sëy na doon mënu yu génn wala mënu yu génnul ku mel ni ànd nag janaba loolu it dañ cay dolli bépp jigéen boo xam ni dafa gis dërëti wasin ba dërët ja jeex ku mel ni mënta jóg julli fokk dañ koy boole ki ànd ak janaba ki nga xam ne dafa gis dërëti règle ba mu jeex dañ koy boole ki ànd ak janaba ñooñu ñépp ma la wax suñu borom nee na bu ngeen jógee jëm ci julli ñu ne naam mu ne fattaharu na ngeen laab suñuy laab lu ñuy laabal fattaharu loolu yàlla wax laabal leen ay kon yaram bi yépp la ñuy laabal mbokk sangu farata mooy nga raxas sa yaram yépp ak noo ko mën a raxasi même bu doon da ngaa ñëw commencé raxas tànk yi ndigg li biir bi bopp bi almuhim raxas nga sa yaram yépp sangu nga farat noonu mooy mbir bi donte ni rasul sallallahu alayhi wasallam nam ko doon defee daf doon raxas awraam ci kanam ci gannaaw jàpp comme buy jàpp jóg julli xëpp ndox ci boppam ñetti yoon raxas ko te ndeyjooram ñetti raxas ko te ndeyjooram ci kaw ba ci suufi tànkam raxas ko te càmmoñam noonu la ko doon defee waaye lay farata ci càngaay fattahawu laabal leen seen yaram yépp ba nga xamee ne borom xam-xam yi dañ ne waa ji demoon géej bismillah soobu ci géej gi wala piscine bi galax ndi ko sarax ndi ko su boobaa bu génnee sangu na farata fattaharu borom boobu nag subhanahu wa taala ne beneen kaa ngi nii yéen a ngi nekk ci tukki munu leen amu leen ndox mu ngeen jàppee amu leen ndox mu ngeen sangoo yéen a ngi feebar munu leen a jëfandikoo ndox doonte ne ndox maa ngi nii waaye jëfandikoo bi day yokk sa feebar kenn ci yéen jóge na ci douche ya am lu mu fa def walla kenn ci yéen laalante ne ak soxna ca loolu mooy ànd ngeen ci sëy léegi nag amu leen ndox bu ngeen mën a jàppe walla sango walla ndox maa ngi fii waaye jëfandikoo ko dañuy lor suñu borom mu ne kon dem leen ngeen jublu ci suuf bu teey jublu leen ci suuf bu teey suuf bu teey mooy lan suuf bu laab ca mooy lépp loo xam ne dafa cosaanoo ak suuf ci montagne yi la ci béton yi la ci beñ bi la ci ban bi la lépp loo xam ne cosaanam mooy suuf rek su boobaa dagan na doomu aadama tiimi ca suñu borom nu ñuy tiime mu ne su boobaa massa leen ca seen kanam ca massa ca seeni loxo rasul sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ni say loxo ngay jël teg ko ci suuf si wala xeer bi wala ban bi wala lu mu mën a doon gannaaw ba nga massa ca la nga xam ne mooy sa kanam daa di massa ca la nga xam ne mooy say tënk ba fi ñuy takk montre allahuma nag am na ay yenn riwaaya yu koy yóbbu ba ci conco waaye li gën a sax mooy bi wane ne fi ñuy takk montre la yem lii mooy texte alquran bi bu ñu delloo it ci sunna am na xadis yoo xam ne day wane ni sa loxo ngay jëkk a massa avant ngay massa sa kanam doonte ne ne loolee Buxaari solo na ko moom ci boppam it soloo na xadis bi wane ni sa kanam ngay jëkk a masa ca moom ba muy bind ab téeréem bokk na lum ci bind mooy baabu tayammumu lil wajhi wal kaffayni buntu tiim ñeel kanam ak i ténq looloo tax ba jumhurul ulama la ñuy gis mooy li yàlla wax ci téeréem loolu moom la ñuy jiital mooy booy tiim sol kanam nga war a jëkk a masa dooga massa say loxo soo gisee it kuy tiim massa ay loxoom dooga massa kanamam nga wañ koo ayibal ca xam ne dafa am ci ay textes yoo xam ne da ko caa teg borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni lii day defuma ko ngir xatal leen ca mbokk nañu xam ne yàlla subhanahu wa taala lu mu def rek am na xikma bu tax yow mën nga ko xam mën nga ko bañ a xam tiim xëy na jafe na nga xam lu tax yàlla naan ñu tiim almuhim jàng nañ ko démb inna allaha yaxkumu ma yurid yàlla mooy atte lu ko neex mi ngi noonu donte ne am na yeneen ñu ci ay wax yu ñu cay wax mais inna allaha yaxkumu ma yurid waaye suñu borom mu ne dama leen a bëgg a laabal yu tahirakum mbokk xam leen ne ki gën a laab ci kaw suuf ci lu amul benn sikk sàkk mooy ab jullit am déet demal tey ci kaw suuf dajaleel mboolemi diine yi am ci kaw suuf mboolemi civilisation jëlil armée russe Amérique defal yépp ana kan lañu imposé na ko heure boo xëyee au minimum au minimum parce que jàpp naa ne ki ki jàpp fajar bu tisbaaree dana jàppaat ca xanaa tisbaar ba gee da nga jàppaat kon au moins da nga jàpp trois fois par jour supposons ñu ne da nga jàpp trois fois par jour kon léegi da nga raxas say loxo yi ñetti yoon fois trois muy juróom-ñeenti yoon da nga ko raxas say loxo demal ci médecin yépp la nga xam ne mooy feebar yi wallaate choléra la am peste la am Ebola la am yu demee noonu yépp dañ koy tuddee la maladie des mains sales mooy feebaru loxo yu salte yi gis nga Ebola bi mu fi ñëwee gaa yu bëri daan jël ay produits di ko teg seen kër après di ci massa loolu mais yow jullit ñu imposé la da ngaa raxas say loxo juróom-ñeenti yoon par bis jullit kese mooy raxas bakkanam juróom-ñeenti yoon par bis jullit kese lañu imposé sa gémmiñ gi da nga ko galax ndi ko juróom-ñeenti yoon par bis jullit ñu imposé la say loxo say tànk da nga ko raxas juróom-ñeenti yoon par bis loolu mooy kon ki gën a laab ci kaw suuf mooy jullit loolu mooy laab goo xam ne nii xistiyan da nga koy yëg donte ne laabul maanawiyan laab goo xam ne laab ak biir la rasul sallallahu alayhi wasallam nee na waa ji nga xam ne day jàpp heure bu raxasee kanamam lam xooloon ci bàkkaar yépp yàlla baal ko ko heure boo raxasee ay loxoom lam doon jëflante ci ay loxoom yàlla baal ko ko heure boo raxasee ay tànkam lam doon dox ci jaaduwul yàlla baal ko ko ba baa da ngay gis ne toq ndox bay mujj a toq ci ñoom dana far dana ànd ak bàkkaar yi nekkoon ci moom ba bu jógee di julli julli ga ay tuyaaba rek lay doon day fekk njàpp ma fóot na la nga xam ne mooy ay bakkaaram kon looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di ne lii de def naa ko li yutahhirakum waaye it borom bi dolli ca ni la'allakum tashkurun ngiree ñu mën a sant suñu borom ca mbokku islam dañ ca war a sant yàlla ci xéewalug lislaam gi mu ñu defal ca sant yàlla mooy nga yëg ne yàlla xéewal na la nga la waay yéen ndawi julit xam leen li leen yàlla jagleel moo gën lam jox Donald Trump moo gën lam jox Bill Gates moo gën lam jox les plus grands milliardaires ñi gën a siiw ci sport ak yeneen ak yeneen képp koo xam ne am nga xéewal ci kaw suuf ci xéewal googee lislaam amu ca yow miy dund lislaam xamal ne yàq ëpp xéewal yal na yàlla boole ñu ci nangu ay xéewalam di sant ay xéewalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ne dañoo am expérience xar boo xam ne dafa lekk ay xewar xewar xëy na lu bëri ci ko day ndakaaru xamuñu ko ay genre lekk la yoo xam ne dafay ëpp si siddéem tuuti cay xonq xar bu ko lekkee bar jur jur gu bëri buñ ko lekkee doolu da leen di rey mu ne nag en général bu ci lekkee buñ ko rendee deret bi day jaune ndax loolu dana dagal ñu lekk ko maadaama rendi nañ ko rek moom dañuy gis ne dagal nañu lekk ko ludul ñu am yëg-yëg ne lii nga xam ne moo ko rey kat jeexital na ci yàpp bi ba ku lekk yàpp bi dana la lor su boobaa day xaraam comme niñ ko waxee sànq jullit dagan na nga lépp lépp lekk lépp sauf lu texte ñëw ne xaraam na wala loo xam ne expérience wala ne na ku ko lekk mu lor la su boobaa loolee day xaram ci wàllu googee amaa nag bu dee ne amul ci benn jeexital buy am ca lekk ga su boobaa buñ ko rendee it da ngay gis loolu dana dagan wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax islam dana nangu picc boo xam ne da nga jël rek dagg bopp bi loolu day bu amee it dana doon loo xam ne lu daggana lekk la waaye def nga lu ñaaw rasul sallallahu alayhi wasallam daanañu wax ne wa ida qataltum fa ahsinu alqitla wa ida zabahtum fa ahsinu alzibaha su ngeen dee rey rafetal leen ay am yéeféer bu ñuy rey wala ku ku ñu rey ci njawlo wala nañ ko rafetal bu dee di ngeen di ren di rafetal leen looloo tax ba jël picc bi rek kutt bopp bi maadaama ne dagg nañu siddi ci baat ya deret ja génn na rey ga dana dagan waaye def nga lu ñaaw ci lislaam mi ngi noonu wallah subhanahu wa taala alam naam bismillah man damay rek comme par exemple même ku dem ci gisaane fa ñu ngi ci gisaane rek mu leen seen kër bi fii ak fii moom yow waaye boo génnee rendee nag bi wala fii dina dina dina fay par exemple yow mi nga xam ne dégg nga aaya bi ci aaya bi yàlla bu ko rek yow dagal na yow bale ak beneen ak beneen bi nga xam ne jàkka bu nga xam ne dañ koy nodd mais duñ koy nodd tout le temps donc duñ koy nodd tout le temps est-ce que dagal na yow wala
ala kulli xaal waa ji dafa dem ñu ne ko lii de moo nekk ci kër gi il faut nga rey fa nangam ak nangam mbokk rey yooyu dañ koy reyal jinne yi lépp loo xam ne bañ koy rey rey ñu ko ca yàlla tax du dagan julit lekk loolu julit daal la muy lekk mooy kii mën naa jël am xaram rendi ko jublu ci jaamu yàlla sarxe ko wala reyum xaram ngir lekk moom njabootam kum ca may mais kii rendil xamb bi kii rendil jinne ji pour jinne ji kontaan ba génn kër ga wala fajal ko dafam lool ah mooy kuy tuuru rek kii tuuru nga xam ne day tuuru deret léeg-léeg sëriñ tereex bi tey ba naa bëy ëllëg nag ëllëg nangam yàpp yooyu julit du ko lekk ndax mooy maa uhilla li xayrillahi bi am naa jàkka joo xam ne du toujours lañ fay nodd ndax mënees na faa julli ah kay maadaama jàkka la moom mënees na faa julli na doon toujours lañ fay noddam duñ fa nodd toujours wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam xar bu ñu for ci mbedd xaalis bu ñu for ci mbedd xaa même bu dee xaalis bu ñu for ci mbedd bu dee som bu tuuti la loolu jarul nekk di wër di laajte masalan yaa ngi doon dem ci benn dajanteeg benn mille francs doo dem di laajte ku xew kuy nangam nangam mën na nekk nag loo xam ne nii mën na kawe masalan tey jii foroon nga lu mel ni xëy ni dix mille wala vingt mille lu mel noonu ña jege foofu mën nga leen a wax ku fi yëg ne am na luñ fi waddal day kooku man for naa fi xaalis suñu toogee ab diir bu doon te ne jamono ju jëkk jaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax ki for dara na ko denc pendant un an mais booba communication yombul woon mais bari na lu ci bari lu nit ñi di wax tey jamono ji am na ay nit ñi ni ñuy gé yàq ñàkk gaaw a génne yaakaar ci li ñu réerle ak li communication demee su doon te ne tey foroon nga benn xaalis tey denc nga ko pendant un mois déggoo kenn ku ko laajte xaalis boobu la jaadu mooy nga jël ko sarxeel ko boroom su ko defee moom dana am tuyaaba yow it da nga am tuyaaba bu dee bokk nga ci ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ba du ñu lekk sarax nga sarax ko keneen su dee na yow bokk nga ci ñi lekk sarax booy sarxe nga jëkke sa bopp loolu moom day islam du ci wax dara moo ko kon xam naa ne comme dafa gudd ñu bàyyi ci des ba waaw kii day xam naa dafa bind xaw ma fan la bind bi jóge waaye waaw mu ne nan lay mën a def ak su chrétiens yi nga xam ne dañoo bokk benn kër dañoo mbekk benn kër li ci lislaam wax rek mooy rafetalal jëm ci ñoom yàlla terewu leen ñi nga xam ne dañoo nekk ak yéen te mosuñu leen xeex ci diine ñoon ngeen rafetal jëm ci ñoom an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim comportement boo leen di defal rek jublu ci woote ci yoonu yàlla loo leen di defal ci lu baax jublu ci woote ci yoonu yàlla di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala bis bu leen dogalee loolu mooy xéewal gi rëy gu jullit di def bokk na ca fexe ba dugal ab yéeféer ci biir lislaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala ah non waaw dafa dafa mel ne soxna Sole dafay tàllal loxo waaw waaw ah waaleykum salaam wa rahmatullah gruyère fromage gruyère waaw ah cey déet déet wa waaw waa léegi doy na balaa caamin yi mer waaw nee na grillard grillé rek golor yaag nangam nangam almuhim bokk liñ koy waxee rek mooy yàlla daal bëril na ak lekk fa lillahi alhamdu lekk yu jóge ci dëkk jullit ñi lekk yu baax yi ñu mën a lekk lépp loo xam ne mosoo caa dégg dara mën ngaa lekk mais loo dem bañ ne la lii sikk sàkk am na ci yonent bi alei salaam dañu doon wax naan da maa yaribu ko illa maa laa yaribu ko lépp loo xam ne ñu ngi ciy sikk sàkk am na mbaam ak du mbaam ci am na leneen loo xam ne wóor na bàyyi la ñuy sikk sàkk jàpp la nga xam ne ni amul sikk sàkk yàlla na yàlla laabal suñuy lekk te ah naam barakallahu fiikum jazak